mbégte la am jàkkaarloog yéen ci seen chaîne Dakaractu TV rawatina ci seen émission bi di redevabilité te ñaaree ñu koy def ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di député yi rawatina ñi nga xam ne ñoo ne ci treizième législature bi. alors comme ni ñu ko defee woon dimanche bi passé ak euh, l'honorable député et président assemblée euh, adjoint au président wala président sax laay wax assemblée nationale di Abdou Mbow tey jii nag ñu am mbégte dalal beneen honorable député di Adji Mbergane Kanouté Nous koy nuyu di de dalal ci émission redevabilité honorable euh, maa ngi leen nuyu bu euh, de la di la fay. Mhm. Euh, di également émission bi di qui ci tey sama sa teewaay fii nga xam ne ci assemblée nationale. Mhm. alors honorable laataa ñuy dem ci question brûlante de l'actualité euh, dama lay poser question bo xamanteni ça a trait à cette émission sax des redevabilité euh, ñaare duñ leen di gis yéen député yi ngeen di redevable au au peuple aux citoyens yi nga xam ne ñoom ñoo leen dem tok ak ñom laj leen lan modi di euh, seen i seen i seen i préoccupation ngeen koy porter indi ko à l'Assemblée nationale alors tay ji yeen ñi nga xamanteni ni ma fàttali ne yow Kaolack nga bok ci région bi. est-ce que souvent yéen ngi réfléchir yéen ñi nga xam ne yéen député yi nekk ci yenn gox yu fasantikoo ci réew mi ngeen dajalo ak askan tok ñu wax leen seeni jafe-jafe ngeen ngeen ngir ngeen ngeen ko mën porter fi nga xam ne di ci hémicycle bi waaw loolu sax euh, ci la ñu nekk nii d'ailleurs parce que euh, ñu ngi waajal forum bu am solo bu mag foofu ci Kaolack mm-hmm. euh, député Kaolack yépp bokk ci département Kaolack

muy artisan bi muy baykat bi muy euh, ndaw bi muy jigen bi euh, muy euh, muy jakartamaan yi muy commerçant yi donc bép corps de métier rek ñu tok ak ñom ñu wax ñu li nga xamné tay mom la président def ci li ñu yëngatu ak li dess parce que amna solo amna le président def ci domaine bu ci nek amna tamit lo xamné japp nañ né euh, lu lu des la. Mhm. te ñom ñoo ñu wax li dess lan la pour ñu mën ko gëna mëna porter yobbu ko ci assemblée nationale. Mhm. te loolu euh, yàgg yàggatul euh, le 28 septembre la muy forum bo xamné ñu ko tuddé les députés face aux citoyens jakarlo ak askan wi. Mhm. donc loolu le député Kaolack yi di def fan yi di ñew inshallah limi limi limi jour moy lañu fay jëlé ci mbëbëtu askanu Kaolack ci li nga moy doléance préoccupation ñu indi ko fi ci assemblée nationale. parce que nous la ne octobre lañu ñu te ministre ñun ci commission euh, technique. Euh, muy occasion dinañ soumettre lépp loo xam rek nous euh, quoi yi yónnee nañu ko. Mmh. ci li nga la président de la république war pour gën a mën a saafaraal yenn jafe-jafe yi euh, également tamit commission de finances dina ñëw tamit ministre yi toogaat ñu wax ak ñoom ci budget boo xam ne tey jii moom moom la ñuy liggéeyee ñu xool luñ ci jagleel Kaolack également plénière tamit dinañ ci waxtaan ak ministre yi donc loolu moo waral tey li nga wax nii daf ñu daf ñu see fekk ndax depuis euh, weer a ngi nii ñu ciy liggéey euh, ba sotti na le 28 septembre incha allah fële ca Kaolack askanu Kaolack yëpp nañ toog. jàkkaarloog député yi nga xam ne ñooy Adji Mergane Kanouté honorable Awa Guèye honorable Chérif Théodore Monteil ak honorable Khoureychi Niass pour ñu waxtaan ci li nga xam ne mooy mbëbëtu askanu Kaolack. day gën a yombal seen liggéey en tant que député ci rentrée bi day doon benn genre tableau de bord boo xam ne ci ngeen di sukkandikoo ngir porte doléance ñi nga xam ne ñoo di askan bi en tant que député. tout à fait yàgg dañ ko doon def sax. Mhm. doon nañ def vraiment avant ñu ñëw assemblée nationale recueillir doléance yi Kaolack waa yi indi ko indi ko fii. porté ko waaye bii dafa am innovation bu am solo mooy parce que dañu lëkkaloo def benn dànk. Mhm. député yëpp dajalandoo àndandoo toogandoo jàkkaloo ñi nga xam ne ñoo ñu fal muy askan bi. Mhm. waxtaan ak ñoom jël sa i mbëbët indi ko assemblée porté ko ba mu am li nga xam ne mooy euh, solution. Mhm. mu ñu saafaral ko.

lan lañ leen ni porté est-ce que xam ngeen ne euh, jafe-jafe ji nekk foofu ci wàllum assainissement ñoom indi na leen jafe-jafe bi nga xamante ni yéen war ngeen a jóg taxu en tant que député même bu leen ci mënul indi saafara également ngeen mën a yëkkati seen baat ba nguur gi mën see indi saafara. waaw xam nga ñun euh, fépp fu am euh, tolof tolof lu mel ni mën ak yooyu. Mhm. dañuy jóg ginnaaw même bu dee Kaolack ma dëkk dëkk jël naa ko sax. Euh, muy Dakar muy yenen région yi ndax député yo xam lañu euh, askanu moñu fal askanu Sénégal même bu nekké dañu joggé ci ben département kon donc pour waxoon ne la rek euh, kenn ku ci nekk amna taxaway taxawaay bu mu am ci muy soutien ci sa doole nu mu tollu soutien ñi nga xam ñoy victime victimes yi mais également tamit soutien moral que li nga wax amna solo parce que même bo amul lo yóbbu sax dem ki nga xam ne victime la dend ak moom wax ak moom defal ko rek sedd na xol donc loolu yaakaar naa ne ñun ñëpp ñu ngi ci euh, di wax tamit ne problème assainissement dafa nekk problème structurel. Mm-hmm. problème boo xam ne la donc doona na tey tey tey nii rek daf fiy jógee. il faut toujours des solutions yoo xam ne ponctuelles la bu mën a soulager euh, wàññi métti méttiti ki nga xam ne moom la dal. Mm-hmm. tey jii bu ngeen xoolee Kaolack euh, am na programme bu ñu fi teg mooy les des 10 villes mooy fukk.

mais qui di le président de la république jiite seen parti wala la coalition moom ñibbisi na ci vacances yi nga xamante ni fekk fi ay problèmes yu bëri jël tamit ay mesures bokk na ci rationaliser li nga xamante ni moom mooy les dépenses de l'État euh, bokk na ci wàññi li nga xamante ni couper sax téléphone yi la ñuy wax li nga xamante ni euh, mënoon nañoo jàpp ay programme budgétivore la woon ci État alors nan nga gisee mesures yooyu noonu en tant que député est-ce que gis nga ni tey jii ni xaalis bi ñuy engendré loonu war na mën a bokk ci li nga xam ne dina jàppale population yi ci yenn ci ay jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund waaw xam nga mesure yoo xam ne la euh, dañ ko war a rafetlu Sénégal bu ci nekk war na koo rafetlu euh, ndax dafa nekk loo xam ne tey euh, dañ koy dugg ci yeneen secteur secteur yoo xam ne yu am solo la par exemple lu mel ni santé lu mel ni éducation lu mel ni li nga xam ne tey jii mooy formation xal ndaw yi ak yeneen secteur yoo xam ne mën na cee dugg gëna mëna jappalé a askan wi. parce que tay jii président de la république dafa am lu mu waxoon bi muy ñew am am vision. vision bo xamné mu Sénégal émergent mu tek fi li nga xamné moy PSE 1 ba teg fi PSE 2 am yenen programme yu mu indi lu mel PSE vert. PSE jeune PSE habitat donc loolu yëpp mu des programmes révolutionnaires et innovants nga xamé tay kan la koy jagleel moy askanu Sénégal kan moy cible bi moy jigen ni moy naw ñi magni, mag personne troisième âge kon pour mu yegg ci objectif am bobu atteindre ko dina ay mesures yoo xam da ko a jël mesures yoo xam la nag am ñu mu neex am président de la république moi askan wi mooy que ne askan wi gis mandat yi ñu ko jox ko benn mandat joxaat nañ ko mandat boo xam ne tey jii Sénégal Légui nak daf fi indi won suppression premier ministre poste premier ministre mu ñëwaat indi gouvernement fast track moy resserrer gouvernement bi recentrer gouvernement bi ñëwaat indi rationalisation des dépenses publiques loolu yëpp tay la tay tombe moy la tay wad yëpp ci askan wi la jëm tay limu mu def nii euh, yaakaar naa ne wowul sax yem fii euh, euh, wax wax boo tax yem ci affaire yi téléphone ak yooyu rek sax ak ay fonctionnaires rek ay loolu ba nga dem ba au delà de ça képp koo xam ne yaa utilisé téléphone téléphone yi loo xam ne état bi koy fay muy ay charge am muy député bi muy keneen ak keneen war nañu mën a sax te la nga yor ñu wàññi ko ndax parce que la wàññi ca askanaw la jëm loolu kenn yaakaar naa ne amul lu mu ciy wax boo seetloo tey les charges de l' état wàññeeku na bu baax a baax a baax ndax euh, ba fi indi loi de finances initiale. ñu ngi 4 et quelques milliards. bi ñu ci loi de finance rectificative bi avons nekk ci ay trois milliards. pour dire que une baisse de 83 milliards. donc c'est important donc président li def di rationaliser euh, daf ñuy tax a gagné lu bëri. dañu gagné nag ci askan bi la jëm. ci président Macky jëmul ci ay député ci ay ministre mais askan bi nga xam ci ñoom la jëm dañ koy encourager nag mu gën a indi ay mesures drastiques yoo xam ne pour gën a réduire li nga xam ne mooy train de vie de mhm. euh, tey damay déglu benn waaye ci rajo bi muy wax euh, proposition bi mu def sax mooy euh, député yi nga xamante ni dañoo bokk ci benn législature bu législature bi jeexee. oto yi ñu leen jox yëpp gouvernement bu fekkee mën na ko waa récupérer waat yëpp ndaxte ay ndaw askan bi lañ

tey jii euh, juróomi at bu weesoo. Mhm. di ko nanguwaat. loolu yaakaar naa ne bokkut ci euh, li nga xam ne mooy élégance. Mhm. koo xam ne euh, daf yaa ko fal. Mhm. teg ko fa. mu liggéey la dama la war a liggéeyee mu ci liggéey bi mu pare liggéey bi jeex ñu ne ko oto ba nga doon liggéeyee teg ko fi. tey même bu dul di assemblée. boo demee ci privé yi ak yeneen yeneen yeneen entreprise yi mais oto voiture de fonction. ñëpp dañ ko am. te kenn ku ci nekk boo defee ba 5 ans dañ koy réformer bàyyee la ko. Mhm. wala dañ koy jaay seen biir. waaw li ëpp dañ leen koy jaay. waaw dañ leen koy jaay mais symboliquement. Mhm. oto bu doon jar 10 millions tey. Mhm. nga nekk ci entreprise. dawal ko dawal ko 5 ans dañ la ko jaayee cinq mille. donc c' est pour dire que député nit la comme kenn ci entreprise bi. député nit la comme ku nekk ci euh, société kii bi ci ci privé bi. il faut pas tamit ñu ñu ñu réduire député ci benn statut de misé misé misé. rabilisme mhm. ça veut dire bu ñu jël vraiment parce que nit ki boo ko buggee liggéeyloo mhm. bëgg ko tamit euh, wax wan bugg mu taxaw taxaw boo xam ne bu euh, autonome la mhm. taxaw bu responsable kenn du ko teg pression il faut également mu am le minimum boo xam ne dina ko permettre mu mën a wax non parce que bu dee député mun mënul wax non kooku du jëriñ askanu Sénégal absolument il faut toujours un député qui dit non

Euh, c'est aussi valable pour le conseil économique mhm. valable pour le haut conseil valable pour d'autres structures donc le président vraiment il euh, ñu ko ñëpp bëgg a jàppalee kenn ku ci nekk war vraiment euh, kuréel bi ñuy nekk institution yi ñu wàññi tamit suñu train de vie état bi tamit gën ba nga xam ne tey jii euh, askanu Sénégal ñu mën a gën a gis seen bopp ci euh, ci li nga xam ne mooy réforme yi nga xam ne moom président Macky Sall teg. Mhm. dañ naan député yi am nañ million am nañ euh, dotation de carburant oto yooyu noonu yëpp mais yéen ñi nga xam ne vous êtes des politiques est-ce que koppar googu ngeen jot doy na leen buñ gisee sollicitation yeeg militant yeeg seen i programme personnel yi ngeen am yi nga xamante ni yëpp de c'est des activités politiques est-ce que tey jii le salaire vraiment bokk na ci li nga xamante ni tey jii mën nañ le député est à l'aise pour à même quand même de conduire ses activités correctement. bu bu ma waxee dëgg rek yàlla tax yàlla rek tax may wax dëgg. Mhm. Euh, député newul à l'aise parce que salaire bi ñu jox ñëpp xam nañ ko euh, salaire un million trois cent la mais du salaire boo xam ne yow député bi yaa ko moom. mais ça diffère également tamit salaire bi ah. ça ci député yi ça diffère am na ñu ëppale. loolu waaw loolu. Mhm. xëy na moo ñi ci bureau bi. Mhm. mais man sama salaire laa xam. donc te moom laa gis presse bi di bind. li ñëpp di bind presse bi. 1 million 300 tamit bëri na di ci maa ngi maa xam nga mhm. tey jii euh, ku ñuy fay 500000 wala 400000 ci biti. Mhm. ci privé bi wala ci entreprise bi ci biti. salaire bi yaa ko moom yow kese. Mhm. ak sa njaboot. député bi ngay fay 1 million 300. moom moomu salaire moom kese de da ngay bokk ak njabootam. bokk ak ak ay militant bokk ak bi nga xam ne ñoo ko fal. kon du coup a amatul salaire. moo tax il faut ni Sénégalais di di réfléchir noonu la ñuy wax waxuñ salaire moo tax il faut ñu réfléchir noonu mhm. salaire bi ñuy am ñun député yi ñu kese moomuñ ko parce que bu ñu la falee député dañuy foog nañ am nga lépp yow la ñuy gën a ki ñuy yërëm mooy ki nga mhm. xam ne mu ci post bu xam ne du poste bu ñu bu fës mhm. alors ki nga xam ne nga xam ne ci poste bi mu nekk fësulu mën na ëpp sax salaire yow mi nekk ci poste bi ñëpp gis nga poste député bi ñëpp yaakaar la yaa ngi ci ordonnance yaa ngi ci ngénte yi yaa ngi ci takk yi yaa ngi ci ñu feebar ñi donc sa salaire à la fin de mois sax c'est difficilement le député mën a joindre les deux bouts. Mhm. te li may wax man xam naa ci dara. Mhm. député yi tey boo seetloo ñi si biti ñoo ñoo leen gën a gën a nekk à l'aise mhm. man dama jógee si société fi ma jógee woon yaakaar naa ne lañ ma doon fay ak lañ may fay fii amul différence. avantage yi ma bàyyi fa ma jógee. moo avantage yi ma fekk assemblée nationale.

parce que c'est un c'est une indemnité pour ramener du salaire sax. Mhm. c'est une indemnité ramener xam ne dañ koy bokk askanu Sénégal. tout à fait assemblée bu fi duggee gis nga nit ci biti. ni ñaa lay sét mhm. duñ lay sété parce que ñoo la fal am nañ problème ordonnance am nañ problème euh, euh seen doom yu feebar wala sen doom bu bëgg jàng amul lu mu fayé jàng. Mhm. wala problème de survie des fois gis ko xamné xeyna euh na. retraité na amul ko ko secondé. donc y a tellement de choses yo xamné ne salaire yi fa la aw.

mura rafet loolu ñu jàkkaarloo yow gis la nga muru muru bu taru machallah mais mm. problème bi fi jëpp jamono ji uh, par rapport ak école Jean d'Arc des voiles yi nga xamanteni dañ leen renvoyer interdire leen uh, l'accès à l'établissement uh, sen seul tor moy dañu voiler wu alors. en tant que tey député tey jii ni euh, nan nga gisee mbir moomu noonu est-ce que tey vous avez envie euh, tey jii dem hémicycle bi porter combat boobu noonu wala gis nga ils ont dans ils sont dans leur droit que euh, revendiquer ne tey jii ni ku voilé mënul dugg ci seen institution bi. waaw xam nga nag dañu nekk dëkk boo xam ne dëkk bu bu laïque la. Mhm. du pays musulman du pays chrétien mais dañ ne laïque. Mhm. kenn ku ci nekk vraiment te la nga gëm te la nga nekk. Il euh, y ne dañ a euh, école école école ngay wax nga gis ay sœur dañu parce que sœur ci voile la. ay ay dañuy sol ay ba ci donc boudé ñu mëna ci biir établissement bi waxuma la ñoo nak tamit pour religion. ñeu fa produit école bu dañ doon dugg si euh, école bi ñu ñuy wéyloo wéy wéy catholique yi. Mhm. donc euh, ñu gis sœurs yi te loolu suñu parents yi mosuñ koo ñaawlu. Mhm. parce que xam nañ ne école on est dans un état laïque. Mhm. donc moo tax vraiment euh, gisoon naa ministre éducation nationale génnoon benn communiqué. autant ñaawlu loolu. te yaakaar naa ne bu ñu bëgg nañu ko déggaat tamit. mu waxaat ci lu mel nii et que xale yi nga xamante ne ñoom la ñu génn ci école boobu noonu.

Euh, président Macky Sall bi muy xayma euh, di bind remplacement madame la présidente Ndeye Marine Badiane euh, leeral na que le mouvement des femmes de l'APR da ko jël teg ko ci loxo ki nga xam ministre de la femme. Mm-hmm. waaye gis la fenn fu madame monsieur le président waxee ne jël naa mouvement des femmes de Benno Bokk Yaakaar teg ko ci loxo ministre de la femme. Mm-hmm. parce que nag il faut une xam dafa am différenciation. Mm-hmm. le mouvement des femmes de l'APR est différent du mouvement des femmes de Bernard est Composé de toute la coalition. Qui est, un mouvement supérieur même mm-hmm. Mm-hmm. à, à la, structure du mouvement des femmes de la paix. Mm-hmm. Parce que c'est une structure qui regroupe tous les mouvements des femmes des partis politiques qui composent la coalition de Benoît Mmh. On est plus d'une centaine. Hein. Y compris la ah, On est plus d'une centaine de présidentes de mouvements de femmes qui compose cette coalition. Et que Naïma Mbadjan reste toujours la présidente nationale des femmes de Bernard Bokoyakar. Donc le fait qu'elle ne soit plus présidente du mouvement des femmes de la paix, ça n'a aucune incidence mhm. sur vraiment la présidence de la coordination donc, nationale des femmes de Bernard Bokoyakar. Mhm. Alors, dernière question, il y a encore évoqué les à l'entente de l'émission, moi, c'est entrée octobre. est-ce que tu se gis-gis euh, boo comparer euh, que rentrée bi nga xamante ni à mon ban ci que mo leen xaar ci bi nga war ngeen toujours rek bu ci rek parce que liggéey la fi tegee liggéey la xaar ñun ay résultats xaar ñun askan lay xaar président tamit lay xaar mhm. président euh, daf ñu dugal ci ay rek le peuple sénégalais donc dañ fi le peuple sénégalais jox satisfaction peuple sénégalais donc également satisfaction tamit le président parce que moom tamit le peuple du fay fal également mu nekk président donc heure bu assemblée rek dañ c'est un défi li ñuy xaar ci biir vraiment moo ëpp peu solo donc li ñuy def vraiment ligué. man moom assemblée euh, yaakaar naa ne lu ma fi def dama koy xeeb parce que damay naan damay fàttali wax damay faral di wax naan le 23 juin dama fekk ma nekk en face de l'Assemblée nationale qui rond point bi. je mhm. venir xeex pour Ablaye Wade Blanc, bu mu jàll. dama fekk devant l'Assemblée nationale. ma toog président ña sekk ma président Tanor ak ki nga xam ne tey moo fi tamit. Mhm. président Ahmed Dazor. ma koy rendre hommage aussi. Mhm. parce que jour boobu mu ngi toog feebar doomam di ko jox ay médicaments pour wane ne rek c'est un nombre de refus. il a toujours été un patriote. également Tanor le président Tanor également était là-bas donc moo tax assemblée bi jamono di dox ba ma dugg si fii dama xam ne rek li ma fi dugal mooy pour liggéeyal askan wi. parce que nag euh, nee nañ euh, cause il euh, y a pas de xaw ma nan cause à effet la. Mhm. ndax ba ma toog di xeex jàkkaarloo assemblée xalaatum woon ne ma naa toog bu dugg ci assemblée ba nekk fi député yàlla indi ma fi nag dama ko def défi boo xam ne lépp loo xam ne wax naa ko mën a liggéey wax ko mën a def pour askanu Sénégal. yaakaar naa ne si laa si laa si laay si laay si laay si laay xëy di ci gont ak tamit député yi fi nekk parce que li ma gis si assemblée bi boo nekkee ci biti dañ naan assemblée liggéeyuñu assemblée amul liggéey mais boo duggee ci biir di nga xam ne ay jàmbaar ñoo fi nekk ay jàmbaar ci liggéey ay jàmbaar tamit ci production tey ñi naan jànguñu tey mën naa ñoo gën a xarañ sax di jàng parce que taxawaay bu am solo lañ fi lañ fi taxawee donc muy opposition muy majorité kenn ku ci nekk yaa ngi indi li nga xam ne mooy sa pierre à l'édifice kenn ku ci nekk yaa ngi indi li nga xam ne mooy sa sa xel sa xalaat ak sa détermination pour vraiment ñu jël ñu ñëpp ñu jël en charge li nga xam ne mooy mbëbatu askanu Sénégal. honorable Adji Mbergane Kanouté ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm jërëjëf maa ngi lay sant yow tamit bu baax Badara di la également encouragé di la félicité pour sa émission bi nga xam ne vraiment am na am na solo lool lool lool. Mm-hmm, mm-hmm, absolument gërëm ko sant ko moom moo doon. Euh,